mi tollu woon na foo nit ñi defa nañ ni yaakar daf fi jeex mais yaakar gi ko li koy dekkal li def ku nekk ci ñun lay doon il faut que chacun de nous soit porteur d'espoir pour qu'il soit porteur d'espoir il faut que moom mu gëm bopam gëm réewam xamni ni réew mi nag kenn wu ko ci nañu libérer nit ñi ci ñun ci ñun homme politique yi nit ñi yaakar ni ku politicien dimbaliwul doo dem ku ñu jàppalewul doo dem nañu gëm yàlla gëm suñu bopp daañu dem sénégalais bu mel noonu lañu bëgg a tabax gis nga li nga xam ni moom la am muy pétrole bi ñuy wax ak muy naaj wi ñuy am ak lépp lu ñu yàlla jox suñu ko gëmee gëm suñu bopp xam ni ñun dong ñoo ko war defar kenn duñu ci fekk si dañu dem que tax sànq li ma wax ci français man len il faut que cette économie extravertie nga xamni li ëpp ci li ñu am dañ kaa jéggaani nam nañu jël li ñu am ñu ko fi normalement si dans un horizon de 15 à 20 ans on acceptait de nous affranchir de l'importation du pétrole et de développer le solaire réew mi mën gis kanam ñu bañ importer ben entrain fexe ba créer ay société yu defar fi lolu loolu moo am solo nañu inversé bu ñu yaakaaree ci bitim réew nañu yaakaar suñu bopp loolu la ñuy doxale réew mi defar suñu réew si raxas xol yi la ku nekk ci ñun xam ni sa moroom la nga man ëppale woo ko ko ku nekk ci ñun xam ni defar réew mi la war ku nekk moo la war ku nekk ci ñun xam ni réew mi ñoo ko moom su yàqoo ñun ñëpp la yàqul ñun li ñu gëm mooy comme ni ko sengoor daan waxe ànd booloo mooy suñu doole boykat bi wax na ko àndoo booloo mooy suñu doole bon nag ngeen xam ni réew mi ñoo ko bokk réew mi ñoo ko moom ñoo ko bokk ñoo ko moom nag du wax jëf rekk la nañuy jëf nañuy jëf nañuy jëf je